del xamal ne ñu ngi ci koor gi delluwaat di nuyu Serigne Niang sama xarit ak <laughs> ak ñoom grand seel mais bu ma gisul soxlu intermédiaire su ma sama diggante ak moom bu ma bu ñëwee sama na laajte madame Diaw su gisul madame Diaw na ñibbi awul ay keneen xaw ma fi kenn ci délai bi ka bu dul madame Diaw boobu bureau ba rek na ñibbi bo ma gisuma ma face à ndax délégation yi dafa am lu ci nekk léegi <laughs> mu monsieur mon excellence le ministre d'État le ministre de l'intérieur le grand Jolof Jolof <laughs> sama mbokk la kii sama mbokk la mais Jolof Jolof la te Jolof Jolof mbokkam rek avant tout Jolof Jolof amee 1000 francs ah benn Jolof Jolof taxaw benn sa Kajoor Kajoor taxaw ak benn Njàmbur Njàmbur ak benn Bool Bool buy may paas Jolof Jolof lay jox 500 jox Saalum Saalum 100 francs ndax mbokkam rek mais monsieur le ministre sama mbokk nga léegi nag cool yi am yëpp. tey dénk nañu journaux yi tënk ko Mbaye Ndiaye nag wax nag wax ju leer da ngeen ko dégg moom du caaxaan kat de kii mais bon ami salaamaaleykum rek ne fon àndanoo xen a ñaaja tax na fona a faaxa séeréer laa ni ngeen may gis nii duma dem fen balaa ci ana iliman bi bu iliman bi yéexee ñëw jiite naa sama bopp ndax jàng naa li ne ci kaamin bi jàng naa bu baax alquran jàng li nga xam ne mooy français ak arab seetkat yi nga xam ne ñooy wër ci télé yeeg ci rajo yi di wax na mujj tey jël nañu décision ferme soo gisee boobu ba léegi waxuma waa DIC ñu ñëw war a procureur commencé enquête bi dama xam ne kat mbir mi daf ñoo bett te ëpp ñu doole dañ ko doon jéem a sagane ndekete indi na gàllankoor boo xam ne lim ñu yàqal ci koom-koom mënuñu ko xayma ñu ngi bàyyi ci nag ba kenn ci seet yi kat yi nga xam ne dañuy seet lu ñu gis dara. nekk ci ci rajo yi war a ci télé yi naan diw ak diw su muy ci làmb muy ci aada muy ci cosaan muy ci réew mi bu nekkul satti gi yi nga xam ne aada ak cosaan la depuis ba Senghor nekkee ba tey ñoom ñoo fi nekk di nekk gardien de la culture ak li nga xam ne mooy mystique ci dëkk yi ñooñu may nañ leen malango yi parce que dañoo dajaloo boole nekk ñoo xam ne dañ leen a reconnaître ñu taxaw di wax ci turu kenn ku nekk te la ñuy wax yépp boo ko seetee benn par benn yàlla dina ci def jàmm waaye jóge fële rek kenn xamul la nga teb ci rajo yi dem ba am promotion yaakaar ne di commencé di wax ni mel na yaay yàlla gu ndaw war a yow dañ la seexal na dak dootul amati nag muy xibaar bu neex ak muy xibaar bu naqari boo leen bëggee loo leen di wax wax leen ko ñu ngeen ko seqal suñu yoon nekkutu ci dafa mujj tey te dinañ ci waxtaan ak sénéra nag ka rajo yeeg télé yi sëriñ si nga xam ne dañuy seetkat yi nga xam ne dañuy profité ci yenn émission yi di fa ut tur war fa jéem a wane seen xam ba nit ñi di ëlbatiku di leen jox seen bopp ñu leen di nax dafay dak te léegi képp kuy seet kat sax na nga ñëw ci ministère de l'intérieur déclarer sa bopp jënd carte di fay patant ak impôt ndax li ngeen bëgg dafa yomb torop toog seen benn puqus rek ut fa seen nekk toog naan damay seete ñaari junni ñetti junni war a damay seete te téeméer nga commencé boo demee ci télé yi ba ñëpp xam la war a ci rajo rek nga yokk affaire bi ku woote bitim réew nga yokk looloo xam ne di kenn xamul la li ngay dugal ci xaalis doo fay taxe doo fay impôt ba pare di sonal li ñu dootul amati képp kuy seet kat na nga jënd fii timbre dangay ngay jënd timbre di fay impôt di fay taxe yéen a may dégg ku ko ci deful nag bés boo fi waxee nit dara ne ko diw di nga am liggéey war a ñaari fan ñetti fan dinga am jëkkër war a di am jabar waa ji porte plainte la ñu dem xool ne wax dëgg yàlla yow da nga nekk koo xam ne la nga doon wax déclaré ko ci kaso bi ngay dee yéen laay waxal yéen seen kat yi ñi ko def métier ñi ko def métier laa wax noo koy defee métier. nit ki kay bu la yàlla mayee kay soo gisee nit dara fexeel ba juganteeg moom wax ko sara xam mu dem am nañu yàlla may waxuñu ne képp ku seet kat munoo waaye taxaw ci télé yeeg rajo yi di bëgg fat bi ke saaret na na doy na doy tey ku munul xam loo reeree suba nan ngay mën a waxee nit ki lu muy reeree suba te yow li ngay reeree suba sax xamoo ko qu'est-ce que ça veut dire kon nag patron de presse yi nañu jël sanction yu leer seen émission yi nga xam ne dañu fay dugal ay nit ñuy taxaw di wax dañ ko arrêté ku bëggati am loo xam ne promotion la nga seet feneen foo koy defee waaye dootul doon ci ay télé yeeg rajo fu mu munti doon nag ci réew mi ndax man Mbaye Ndiaye du ma caaxaane yooyu maa leen gën a jàng fu xam naa bu baax kamin gi dama koy xool di lisi xaar di xam na jeex ah loolu yëpp da ngeen ko foog ne ay waxu caaxaan man yooyu yëngalu ma ah. ah sama téléphone bee ngi sonné sax sonal ba depuis démb maa ngi koy wax maa ngi koy wax Macky Sall xam nga moom nit ku baax la rek naa ma defal nag defal na loolu la alo waaw kookan la <laughs> eh, rek na mun euh, faax na faaxa ah nga ne dag ma géntal <laughs> yow de loo ma mës a ma gis ko waaw lan laay génne sara ma génne ñaari lappe benn golo laminu laminu gaynde a ah laminu gaynde bi bu ma ko defee rek nga dinaa doon président nga de bay li ngay wax waay ah yow tamit da ngaa bay makki eggali ba ba ci kanam ah bos bu Macky demee ba doyal buy bay man la yoo <laughs> sarax bi lan lay def ñaari kilo dugub ñetti sonde ñaari dàllu policier yu retraité waaw ah loolu dina jafe am caaya président bu bàyyi xanaa woo góor gi rek tëj ko seet am na de ku ko waxul da ngay wax la neex yaa mën ñëpp doo seen borom foo nekk yaa maa ngi koy génne léegi maa ngi koy maa ngi koy génne léegi bu ko wax ci rajo bi télé bi de coupé